dam Dame dekk fi ci medina man nak en tant que jeune. di naqaru li fi am démb nga xamne fi ni ci risis bi la amé ah <clears throat> li am Medina ni ñun ñep ñaawlu nan ko ñep ñaawlu nan ko wax deug yalla ñaawlu nan ko bu baax a baax a baax a baax. man mako ko ñaka rafetlu parce que man dama dama tek samay beut ci fay lu mo metti la nak parce que medina xar kanamu dembam dañ ko wara sam ba tay mais lima gis def ko c'est comme te soo xoolee situation bi ñu toll ak coronavirus bi donc lu mel noonu ay jëfu maa tay lay nirool doomu Medina nag xar kanam du loolu. xale yoo xam ne mbedd rek lañ ñu xam mel ni amu leen biir kër suñ leen tëjee ngeen war a toog. lii presque boo ko xoolee gàcce la. waaye xale yu mel nii ma gis démb ruus naa si c'est pas c'est pas di la Médina est-ce que Médina dañuy dëgg sax parce que ñun fii. c'était une bu pe bu bu la bu bu convivial nga xam ne ñëpp bokkoon di kii waaye nekk si euh, euh, tali bi di nar di nargué policiers yi di leen kokkali ah ëllëg bu la dóoree euh, ils sont très très impolis. lañ dëkk Médina amul lu bon Médina kenn xamewuñ yëfu sauvage ak yëfu barbare tamit tey tey li am tax na ñu ngi tudd ci lépp. affaire bi yàggul. suñ la mois deux mois sax suñu waxoon quatre mois lañ lay euh, te tere mbedd mi sax nga sant yàlla. nag feebar bi mooy tax ñu war a protéger suñu bopp kon euh, policiers yi nga xam ne ñoo ñuy protéger ñun dañu war a dégg seen digal comme couvre-feu la feu kenn ku nekk danga nga war a toog sa biir kër. parce que ñun Médina kenn xamee ñu indiscipliné kenn xamee ñu réewande yar la ñu xamee ak fu ñu fekk rek ñu defar mais maa ngi ñu ngi jéggalu nag wax dëgg yàlla di jéggalu euh, le président. di jégalu surtout suñu maire Bamba Fall ñu ngi koy jégalu baax di jégalu it ministre de l'intérieur. ñun nag li nga xam ne war nañu dugg naa si kër yi fii yëpp kër gu nekk tey dugg naa fa wax naa ak seeni waajur yi ñun côté bi nga xam ne man maa ko res fu nekk dem naa fa wax ak sa yaay woo paa yi waxuma sax ak xale yi mais seen papa yi laay wax ak seen yaay yi ne leen bu ngeen tëddee jël leen seen doom ngeen téye ko. na ñëpp toog seen kër. comme ni ko président de la république waxee sàmm seen bopp bu heure bi jotee bu ñu gis kenn ci tali bi suuf Médina ñëpp toog seen kër loolu moom moo ñuy aar. c'est pour un temps dañ def effort xale yi def leen effort lii ni di baax ñu ngi ñaan sunu religieux yi sunu euh, euh, euh, chef religieux ñu ngi naan ku nekk nga jël sa course di di di ñaan yéen ngeen bëgg nekk ay inconscient bu leen ko nangul maa ngi wax parents nag ngir yàlla war a suuri ñu dellu xoolaat seen dom jar na ko ñuy woo xale yi avant 18 heures sensibiliser leen wax leen cas bi fu mu toll corona bi nu mu nekkee dëkk bi te lii président teg rien que pour sauver population Sénégal la. tey gars yi nañu delluwaat ginnaaw xool bu baax la ñuy def ñu toog suñu kër yi toog suñu kër yi aar suñu bopp aar suñu njaboot couvre-feu bi nag gars yi defuñu ko pour dara pour ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañ te yenn heure yi duñu fekk ci mbedd mi te xam ne feebar bi mi ngi ci mbedd mi ñu ngi woo ñëpp gars yi dañ toog suñu biir kër yi ñu aar suñu bopp aaraale suñuy famille aaraale suñuy njaboot.